asalaamaaleykum mbokk déglukat yi tey jii di altine yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2019 docteur Binetou Cheikh Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Khady. ñu ngi ci chronique numéro 103 euh, euh, nan la ñuy euh, lekkee ay nen docteur ci la ñuy fas yéene waxtaan nen yi jógee ci ginaar. lan moo nekk ci biir nen docteur Bintou. alors nen bi gis nañ ko dafa am euh, lu weex benn benn liquide bu mel ni ndox bu weex mais bu xaw a bu di tax ñu koy wax lu blanc euh, kii blanc boobu euh, li ci ëpp ndox la moo ko composé maanaam 87 pour cent yi ndox la. bi ci des yeneen 12 pour cent yi protéine la mooy ferñeent boobu ñuy wax protéine mm-hmm. bi ñuy wax albumine ci tubaab ensuite ci jaune bi lu lu jaune yi nekk ci nen bi moom. Euh, li ci ëpp euh, kii la protéine ak surtout graisse et notamment euh, ci graisse boobu am na lu ñuy wax ay oméga 3 moo nekk ci nen et puis nen nañ jàpp aussi am na ay yenn vitamines ak sels minéraux wala ñuy wax oligo éléments ay ferñeent daal yu bari yu nekk ci ci nen. waaw nen lan la ñu mën yokkal docteur. nen nañ jàpp ni protéine li ñuy wax protéine de référence c'est-à-dire ci. protéines yi protéines mooy li nekk ci yàpp yi nekk ci ginaar yi nekk ci jën mhm. yooyu yëpp nen référence la tellement nen dafa baax parce que ci nen euh, lépp li ñuy wut ci dafa complet parce que euh, nen euh, protéine pardon mhm. li ko defar Mm-hmm. mooy li ko constitué mm-hmm. mooy li ñuy wax acide aminé mm-hmm. euh, et acide aminé yooyu dafa am yu acide aminé yu bëree bari te am na yenn acide aminé mat nañu ay fukk ak ñaar presque yoo xam ne euh, suñu yaram mënu ko defar Mm-hmm. il faut que ñu mën koo lekk ci suñu mën ko jot ci ñam yi mm-hmm. te du ñam yëpp ñoo am acide aminé yooyu yëpp waaye nen li tax ñu naan dafa complet c'est que moom acide aminé yooyu yëpp mi ngi ci mi ngi ci nen mm-hmm. et puis nen dafa doon loo xamante ne protéine boo xam ne dañ koy suñu yaram daf koy digérer absorber ko bu baax su ko defee dañu on considère que ñun protéine de référence la c'est une très bonne protéine euh, et nañu xam ne ni donc bu dee protéine de référence ça veut dire que ñooñu nga xamante ne seen euh, loxo jotul seen ngannaaw mën nañu jënd régulièrement ay yàpp nga xam ne moom tam protéine bu baax la am mën ñu jënd ginaar bu doy mën nañu jënd jën bu doy mën nañu ko am tous les jours hmm. ñu mën nañ dem ci nen parce que nen euh, lu baax a baax la te euh, xëy na cherul comme yeneen yeneen yàpp ya ginaar ya jën hmm. euh, beneen bi mooy jaune boobu ñuy wax dafa am ñaari ferñeent yu ci nekk yu ñuy wax lutéine ak zéaxanthine ñaari ferñeent yooyu ay antioxydant lañu maanaam ci li nga xamante ne dafay euh, daf ñuy aar ci dafay retarder le vieillissement maanaam li nga xam ne màgget ñun ñëpp ci dem suñu mhm. cër yi aussi day màgget suñu organes yi di màgget mhm. mais antioxydants yi dañuy tax màggataay boobu yéex voilà yéex a egsi mhm. donc ay anti mais antioxydants yooyu ma wax ñooñ dañu baax particulièrement ci bët euh, te ñoom ñooy euh, retarder woo yéexal cataracte par exemple ñooy yéexal aussi li ñuy wax Euh, dégénérescence maculaire liée à lage yooyu yëpp ay feebar la bët la yoo xamante ne mhm. màggetaay moo koy indi euh, et puis mën nañ dem ba gumba ndax feebar yooyu ñaari ferñeent yooyu baax nañu torop ci aar ñu ci yooyu mhm. Euh, ñetteel bi mooy kii euh, jaune bi toujours dafa am ay ferñeent yi ma doon wax sànq euh, vitamine A am na ci vitamine D vitamine E ay potassium ak yeneen ak yeneen yu nekk ci biir donc yooyu yëpp mooy solo wu nen. Mhm. waaw est-ce que am na ay risques maanaam ay loxaange yoo xamante ne ànd na ak di lekk nen. xam nga nen dafa am nekk ñam boo xamante ne. yàgg na am mauvaise réputation. Mhm. te li ko indi mooy ci année quatre-vingt yi. ay ay gëstukat ay scientifique dañoo dem gëstu gëstu day conclure ni nel nen euh, ku koy faral ku koy lekk da ngay am cholestérol bu sa cholestérol day yokk mhm. euh, parce que ñu ne nen ñu nekk ci cholestérol ci nen euh, ci jaune bi dafa bari et bi ñu defee seen étude yooyu Eh, gis daal di ne daal nen ku am cholestérol wala ku ragal am cholestérol bu bari ci sa ci deret na bàyyi leen wala mu lekk ci lu néew eh, ba nga xam ne nag ñu bari dañoo ragal nen ñu bari eh, éliminer ko complètement ci seen ci seen alimentation mm-hmm. mais heureusement que ci année 2000 yi dañoo yeneen scientifique ñoo def ay gëstu yu gën a baax mm-hmm. yoo xamante ne définitivement dafa wane ni nen lekku nen mënul indi benn gàllankoor ci wàllu cholestérol ak mal wàllu feebaru xol wala feebaru sidit mhm. te loolu non seulement études yooyu dañ ko leeral mais depuis la am na ay études yu bari ay gëstu yu bari yoo xam ne ñëw nañu topp ci gën koo leeral mhm. euh, ba nga xamante ne nen daal xam nañu ni amul benn impact ci lekk ko amul impact ci cholestérol wala feebaru xol mhm. waaye nag nañ jàpp que ni nen loo xam ne la mën na def nit allergie c'est-à-dire que euh, dafa am ay li ñuy wax allergène ci nen surtout nag ci blanc bi euh, donc am nit ki su allergique ci nen mën na am ay euh, ay problème ay jaare di wàccu maanaam biir buy daw wala di wàccu mën na nekk aussi mu def ko asthme wala mu def ko espèce u eczéma wala ndoxum siti et d'ailleurs moo tax ñuy ñuy conseiller ñu bañ a jox nen Euh, surtout blanc bi blanc wu nen mhm. euh, ñu bañ ko jox euh, xale boo xamante ne amagul benn at mhm. Mhm. d'accord Euh, docteur est-ce que tey mën nañu xam ñaata nen lañ mën a jëfandikoo ci ay bés yi alors mën nañu bés jàpp jëfandikoo ci semaine bi lu lu mat juróom benn nen sans problème Euh, ku am nga am problème mu cholestérol ak wala problème mu tension wala leneen ak lu mënti doon juróom benn leen ci semaine bi vraiment amul benn problème mhm. alors nen di gën a baax ni ñu koy toggee euh, méthode bi ñu koy toggee bi gën a baax mooy euh, boo xamante ne kii blanc bi day ñor ba noppi jaune bi xaw a bañ a ñor mhm. ñu koy wax par sur le plat par exemple nga xamante ne noonu lay togg bi noonu lay demee mhm. lu tax parce que blanc bi bu ñorul mën na indi ay problème digestion et puis jaune boobu bu fekkee ni euh, dafa ñoradi moo gën a baax parce que day conserver dañu mën a am ferñeent yëpp yi ci nekk dinañ ko mën a am mu nekk de meilleure qualité. day xaw tooy daal dafay xaw a tooy dafay xaw a tooy. am na aussi ñu koy jël nekk ko œuf à la coque maanaam ñoraay bi dafay vraiment des tuuti nañu ñoral nen bi. lekkee ko noonu loolu tam baax na. Euh, leneen bi ci des mooy kuy togg euh, sur le plat wala omelette wala voilà euh, normalement warul sax soxla ñu ciy def diwlin pour togg ko li gën mooy ñu am pool boo xam ne du dar su ko defee nen bi ak graisse bi ci nekk yëpp de toute façon mën nañ ko ñoral normalement sans dolli ci diwlin wala leneen pour togg ko. nen bi bi. alors nen bi comme ci jaune bi dafa am graisse donc bu ñu mënee togg nen bi te duñ ci dool yi graisse moo gën voilà. page Facebook. page Facebook yi mooy Sud Nutrition ñu leen di ñaar ngeen gën a bari ñëw seet si ñu laaj ñu seen i laaj euh, suggéré ñu ay thèmes et puis euh, suñu chronique passée yëpp ñu ngi ko posté ci page bi Sud Nutrition. ñu ngi gërëm suñu sponsor Val d'Afrique di la gërëm docteur Bintou Cheikh Seck. jërëjëf Ndeye Khady.